salaamaaleykum mbooloo mi di nuy ku ci ne sa tur ak sa sant tey nag li nu fi dajale muy juddu ki nga xamante ne mooy Seydina Mohamed borom bayatu orga ca Medina ki nga xamante ne sunu borom da koo tagg ne ko way naka laaxul xel azim tey nag ñu ne fi nga xamante ne nag mooy dëkk sëtam muy Cheikh bu Kunta ki nga xamante ne jiwoon ak sunu borom ba lu ko ñaar rek mu daal di nangu waaye soo ñëwee fii nga xamante ne mooy kër maam Mohamed bu Kunta gis nañ fi li nga xamante ne alxuraan naan. watasim abdillahi jamian wala tafaraxu parce que fii nii doo xàmmee tey ban diine moo fi nekk comme nañ ko faral dax naa watasim abdillahi jamian watasim na ngeen gëm yàlla jamian ci buumu yàlla bi wala tafaraxu te bu leen tàqalikoo te tey ji loolu lañ gis ñaani cee ki nga xamante ni kenn dooru ko présenté ci Thiès ki nga xamante ni fa papaam taxawoon nekkoon représentant xalif général Mouride Thiès bépp kër kilifa diine gum dem muy alaaji Pa muy sa sekk ñuy ñaanal fa mu nekk yàlla ko gënal fi mu jugee njabootam gi mu fi bàyyi yàlla gën leen a sàmm Abdou Karim nak mom nak day def li nga xamante ne fépp de papaam da ko doon def rek daa ñëw pour continuer te ñaan doon sa baay doon sa baay ko gën ñu gis ni mu fi nga xamante ni mooy def tamit li nga xamante ni la li ñuy wax naan innal waalidayya ixsaan nañu rafetal Abdou Karim Seck loolu lay def ci social ci baax ci yaatu kër diina gum dem da nga yaakaar fa nga bokk moom jox leader mouvement dekkal cosaan nekk nit ku baax nit ku yàlla baaxal soo engagement repose sur l'éthique et la morale Abdou Karim Seck vous avez la parole. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku si ne ci turam ak santam di am mbégte lool di nuyu Soxna mbintu ak sëñ Moustapha di nuyu tamit njabootam di nuyu sëñ Buuna mi nga xam te ne tey jii mooy xalifaam ak ay magam yi fi nekk ak raqam yi fi nekk. di am lool di wax ni soxna Mintu ñu bari dañ ko umpale waaw parce que tey jii man dama bokk ak moom ñaar ci côté muy si wàllum politique muy AFP muy digganteem ak Moustapha Niass Moustapha Niass sama papa moo newoon kilifaam 1986 ba mu amee problème ak Djibo Ka la sama rakk juddu mu tuddee ko Moustapha Niass Seck dal ni Abdou Diouf nek sa non mo gën nek sa xarit dem and ak Moustapha Niass ba buñ ko Moustapha Niass ba demee ba bu ko dugalat ci gouvernement bi dal ni aladji mbeye sa rek la mën mom ci mom ngeen ko mën jaar soxna Mintu momit it di ku dëggu vraiment ba mu jappé ba tay bayiwul dem si ba jeex kep ku bëggoon Moustapha Niass AFP soxna Mintu japp na la ñepp fi lañ doon ñew tay ji aline sar faxewon tamit ma xamanteek moom parce que si moom la ma yónni woon ci gàmm gi ma ñëw fa tamit mu uuf ma jël ay raqam boole ma ak ñoom ñu ma dama bëgg nga ànd ak sama rakk yi may ñibbi moom ma ñi ko defal teraanga yëkkati xaalis bari yëkkati dugub ak lépp def ba ni ma bul gëj ñaasaan kon boog loolu moom moo ma ñi ko def teraanga jooju am na nu doon defee tey jii su ma àndeek moom tey jii faalewu ma wala tey def ma si boppam dootuma fi ñëw waaye lépp kon boog si moom la di wax ni xëy na ni boo gisee sax ñu bari dañ naan ko soxna Bintu mënta politique wala mënta kii moom bu xasee ba jàpp fenn rek jàpp na nit ñu bari xamuñu valeur am nag yàlla nag moo am ñoom dafa am lu dama koy def si ñoom di di wax tamit nit ñi tamit gën ko bàyyi xel man moom dama koy nuyu parce que man daf ma boole si njabootam tey jii koo xam te ni tey jii ba mu tawatee di ñëw Thiès ay taalibeem bari na fa ay mbokkam bari na fa waaye dañu leen woo leen ma Abdou Karim dikk ni ma ah defal ma gaaw mbaxal affaire yooyu sëñ bu ni ma ma ngi noonu ma génn nañ si boobu ba léegi ma ni soxna si ah bugguma añ tardé bugguma dara moom soxna affaire kon tamit loolu sant yàlla la Mohamed mii kii doomam dañuy jokkoo sëñ buuna dañuy déggante lépp daanaka njaasaan man nee naa ko soxna si man sax dinaa dugg njaasaan def li may def ba génn sa moom du ko yëg tey ji am na loo xamante tey su ma ñëwoon tay yi ñew féete ci mom day melni kon bok yaatul day melni kon dafa kini tay jii suma ñew ay ñom seigne Cheikh ak ñom seigne bunawa tay jii mako def lepp yalla ak moma tax kon bok mom lañ koy defal parce que ñoon ci njabotam lañu tay des fois ma xañ ko jox ay mbokam parce que lolu man damay gis sama wajur don ko doxé tay jii amoon ñep wolere bayam ak sama da lo nekkon ay xarit lool ma xam lu bari parce que segor sama papa defaniko damaa bëgg a nekk représentant xalif général ñëpp ci wàllum gouvernement bi képp tarixa boo xamante ni am nga aajo ci diggante pré ci diggante nguur gi ak sëriñ yi baal ma dox lépp muy ab abdoog ñoom ñëpp nga am njaasaan ak sama papa lépp moo ko doon dox nii tey jii ba ba muy génn àdduna dani sama doom du leen waccal dara laa ni fukki junni la fa bàyyi sa joxe na ay milliards àddiya fukki junni mu ni du ma bàyyi kenn doon du ma fa bàyyi waaye foo ni diwoo sama bàyyi ku góorgóor tuuti cër gi moom ni nga ko am moo tax dara feesul suñu bët Serigne Cheikh Tidiane si yëkkati 35 millions ñu ko damaa bëgg nga séddale ko sama waaju di ko séddale di ko séddale ba sama mag bi ni ko waa góor gi doo yëkkati 10 000 joxe doo yëkkati 20 mille 20 20 millions joxe jëli mu ni bëgguma sëñ bi gën maa gore samay doom dama leen di jàngal lu jub ba bu ëllëgee bu leen joxee ñu mun koo séddale tàggatal ba mu ñëwee suñu seex dañu ko la ma si namoon suñu borom xamal na ma ni am naa ko si kon tamit di sant yàlla soxna mintu moom lépp luñ ko defal moo nu ko ñu ko defal créer groupe mu bokk si nekk suñu yaay groupe gam te lu ko lu nekk moo ciy dugg des fois nit juum dugal loo xamante ni des fois kenn wax dara des fois sawar lépp mu sawar des fois di génne nit ñeeg yëpp nii ba sox mbir laam léegi di ko naan soxna Bintu nee na maa koy gàmmal ak ñoom ñëpp di ko defa yooyu waaye loolu ci oyofam la kon boog di am mbégte di wax tamit lépp lu def rek moom lañ ko defal kon tamit di ñaan tamit ba sunu waajur fa mu tegoon tànkam ñu teg fa sunu tànk di wax ni soxna Mintu nag moom lépp li nga xam te ne tey jii moom rëccu na tey jii rëccu tey jii si politique tey tàllal na affaire yëpp loolu yëpp bëgg nañ ko ko fajal bu sooba yàlla ñun loolu moo nekk suñu yéenee ñun xam na nañu mooy kan waaye am ñoom te nag dañ ko ëmpale waaye ñun ñi koy jege xam nañ ko ba nu ànd ak moom ba léegi dañuy yokk rek ba ñëw danoo ñaanoon oto jàmbur la ni noonu oto service si diggante bi am nañ fa ñetti oto di def loo xamante ni mënuñu ko waaye yàlla moo siy dimbali si barke bis bi na mën a ñaanal kon tamit di am mbégte lool di wax daal moom mooy sama yaay mooy sama lépp ñemewu maa dugg njaasaan def la ma sa duma fi jaar loolu moom sama xal sax xalaatu ko na leer na fépp fu mu mën a dégg ak fépp fépp fu ma dugg si njaasaan si tànkam laa koy demee parce que lépp moo ma mooy sama bunt moo ma booleeg ay raqam moo ma booleeg ñëpp ba ñëpp nekk samay xarit fi mu ne ñëpp ak may woon ni lépp yàlla ak moom la kon wa salaam. macha allah Abdou Karim Seck kàddu gi am na solo te kàddu gi dal na lool waaye seede bi nga xam ni seede nga ko ci yaay Mintu ku dégg ni nga waxee dina xam dëgg la. bu dégg ni nga waxee dina xam ni dund nga ko ak moom dañuy ñaan yàlla moo bàyyil ak moom eh, incha allahu seen and eh, bi yal na ko yàlla saxal yal na ko yàlla yàggal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax nag wax dëgg yàlla ànd moom dafa doon loo xamante ni dafa war a dëggu ndax bu dëggoo rek jur njariñ waaw bu dëggoo rek jur njariñ te seen ànd ñaar dëgg-dëgg ko ko xool xam ni jur na njariñ ndax feeñ na wax nga ni bi nga fiy ñëw oto jàmbur nga fi indi woon te yokkute am na yàlla na gën a yokk ndax wax dëgg yàlla kuy sa wéjur maam bu ah boo ko jegee day wax dëgg yàlla sa xel war naa dal kon ñun ñii toog jege ko na suñu xel dal bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy gérawaat bu baax a baax a baax di amaat mbégte ci moom di amaat kontaan ci moom